a yi toog le vice champion d'Afrique, Afrique ak Maktar ah, bu ñu fële Kazakhstan dama bëgg daal ñu indil ñu ndam li bu baax a baax baax ko son excellence monsieur Macky Sall fële si palais ba loolu rek ñaanal alors dañuy daal di ñëw nag wax parce que discipline bras de fer dem si seetlu dafa am comité un comité national de promotion du bras de fer au Sénégal am une association bras de fer sportif au Sénégal mu de ñaari La discipline bi amagul fédération mais a comité mais si kaw ne dama la présence de ce comité motax damay si jox rek monsieur Konaté waral dualité recherche defna enquête samay investigation mais dafa des association bras de fer ak comité bi c'est quoi le problème Bon, Aziz, euh, pour éclaircir ce lanterne, dama lay xamal ni dualité amu fi d'abord parce que mënu leen bokk euh, même discipline ngeen war que vulgariser nous am dialité, dialité amufi. fi euh, xam naa li ñuy wax rek xëy na ñàkk rek mo am man si sama xalaat bu ñun amuñu problème ak kenn te ñaanu yàlla am problème ak kenn ci bras de fer parce que ñun bras de fer dañ ko dund di koy dund depuis deux mille neuf deux mille dix comme ni ma la ko waxee wax naa la léegi ñun ñu ngi am su suñu récépissé d'association sénégalaise de bras de fer sportif le 4 août 2010 ça fait 13 ans bientôt donc nous euh, am pour promouvoir la discipline nous am pour vulgariser les sports D'où ma sama habitude di wax si lu ma xamul walla di wax si nit ku sais li ma la je wax nous euh, ñun ñu le chemin dans le bras de fer Nous nous dab ñu nous dem ku le dab ñu dem euh, éviter wuñu kenn ku le ni bras de fer le ànd doxal le de doxal mais parce que may déglu say cadeau nga ne dualité amu nga ne ñak waxtan mo am ñak waxtan boobu bu amé daan ko problème dualité day mujjé s'installer wu motax ma lay laaj lolu la mo waral lolu parce que ministère des sports mo fi tek CNP te CNP gisuma mu accompagner leen gisuma tamit un élément de CNP bokk ci douzième championnat d'Afrique bi moo tax ma y a un problème moo nak nag dama bëgg ñu ñi sétane. Ngay indi ñu explication wala éclaircissement yi nga xamné daf ñoo xawa a jaaxal parce que tay dama japp né discipline bras de fer war na mëna a doon benn comité bo xamné ben benn la doon mu nekk lu solide sans pour autant ñi disperser wu ñiy jaar ni ñi la jaar na le c'est quoi ce problème carrément. bon li voulez je wax xam nga dama koy répété waat ñun dañu nek association. créé association en 2010. ñun ñoo un comité bi. nous sommes plus âgés. yéen yéen fi comité merci. tu vois. Mhm. Euh, débat bëgguma si bëgguma si. Ah, mais mais <laughs> soo xoolee. Ah, dama la wax dama la mm-hmm. nit da ngay mm-hmm. ñu fekk la mm-hmm. en tant qu'association. organisé en 2009... compétition africaine en tant qu'association dem nañu de nos propres moyens si tournant africain bi mon Bamako de nos propres moyens en tant qu'association ren dem nañu Ghana n'est-ce pas euh, suñu avons une association am une certaine organisation est-ce que dañuy bouger non non leer est que le Sénégal participe wul et loolu pour ñun dafa ñaaw si Sénégal te ñun ñu bokk si affaire bi ñu bok si ñi nga xam ni dañ ko lancé moo tax dafa am débat yi nga xam ni du bëgg dugg peut-être soo amoon wa CNP akli mën la wax lan li ak ak merci beaucoup monsieur xam nga une discipline une <laughs> discipline su ngeen ko bëggee développer mhm. war leen xulo war leen ngaayo war leen réero mhm. da ngeen war a nekk benn te ñun mhm. si loolu la ñuy nekk mooy suñu objectif ñun di promouvoir vulgariser ensemble le bras de fer sportif merci beaucoup damay daal di ñëw si athlète bi Matar Ndiaye parce que le, le ministère des sports daf fi teg benn comité muy CNP CNP nag ku ko jiital mooy Abdou Aziz saw ginnaaw loolu avant ngeen di dem ci deuxième championnat d'Afrique bi est-ce que recevoir nga benn appel de convocation wala ngeen toog waxtaan si ak le président Meng bu xam ne moo gère association bras de fer sportif au Sénégal est-ce que toog am na balaa ngeen di. waaw Abdou Aziz comme ni ko kilifa gi waxee rek. problème amul ñàkk waxtaan a am xëy na mooy li ma lay waxaat man déggoo li ma la man xaaruma gouvernement bu ma yeewoo fajar dinaa liggéey pour am lu ma amal sam poche pour yóbbu ko suma kër bu ma waree dem défendre couleur sa Kazakhstan bii sax bu ko yéex ñun dinañ teg suñuy billet teg suñuy lépp dem xam nga tey boo xoolee CNP mooy gouvernement du dëgg ñun association bi xaaruñu gouvernement dañu bëgg gouvernement fekk ñu ci yoon bi parce que li CNP war a def ñun ñoo ngi koy def man mii di wax ak yow dama bokk ci CNP ndax arrêté ministériel boo ko liiree bu CNP man adjoint trésorier la CNP euh, convoqué nañu a problème CNP convoqué wuñu amul benn problème ñun li am problème mooy euh, ñoom peut-être dama leen lancer sax message parce que Abdou Aziz Sow boobu nga wax c'est un frère sénégalais CNP ay beneen xeet naw fa de nous sommes tous des sénégalais ñun ñëpp xamante nañu association beeg CNP toog nañu réunir nañu. dundal ñun dañu bëgg dundal sport bi. sport mënuñu dundal mais ñu ñoo koy dundal Grand Matar de demee six heures du matin di nga ko fekk mu taxaw Diallo même chose Cheikhouna même chose Manit même chose dix-huit heures di ñu fekkaat salle donc ñun suñu objectif mooy dundal sport bi peut-être CNP ñoom gouvernement bi leen dégg gouvernement bi nag ñoom bu leen neexee dinañ CNP ak association dinañ laaj CNP qu'est-ce qui passe mais pour ñun dara xewul ñun ñoo ngi défendre Nigéria def nañ ko ba ñuy dem dem naa dem naa Nigéria ànd ak griffe CNP woon Nigéria. en même temps en même temps ñëw. ñëw. ñëw mais loolu garaawul. mooy li ma la wax ñun Sénégal la ñuy défendre man défendre ma Aziz défendre ma parti politique Sénégal. sànq dama dégg si ay kàddu monsieur Konaté. mu ne association bras de fer sportif au Sénégal moo jiitu li nga xam ne mooy comité national de promotion. exactement. jiitu boobu est-ce que nekkul moo tax association bi bu doon sogoon comité day ñëw fekk si ko moom mu jiitee loolu. wala tey comité bi day toog di xaar rek association bi ñëw. waaw parce que li ngay posé sax euh, grand Matar Konaté loolu man maa ci war a tontu sax man defe naa. parce que boo xoolee association sport association sportive de bras de fer du Sénégal 2010 la existé CNP 2019 la existé. 9 ans de différence. te si texte yi li may wax waa ministère ñoom xam nañ ko ma def sànq sax yaa ngi wax naan gouvernement bi non gouvernement bi li leen war def nañ ko ñoom joxe nañu arrêté donc ñin ñi ñu dénk ñoom nañ def li leen war ba léegi nag problème amul association bi ñun ba ñuy ba ñuy demander ñun pour am arrêté association bi mo ngi ci yoonu dem défendre couleur Sénégal ca Mali. bokkul. vous êtes en avance quoi. parce que ñom ñun association bi la bañi hmm. ñom association bi tay expérience bi mu def ci bras de fer. Hmm. ci Afrique je te parle pas du Sénégal ci Afrique Mali rek ko ci raw ndax Mali lu mu dee dee def na.

ngay dem di liggéey nga nekk un soutien de famille say njabot yaakaar la lépp li nga jot a yépp malgré bëgg nga sa réew trop nga nekk euh, nga nekk patriote nga jëlaat xaalis boobu yëpp defaat ko si biir discipline bi tey dama bëgg loolu mu jeex que yéen prochaine fois boo leen jug fii di waajal mondial ministère de sport bi nga xam ne moom leen dénk wàllum tàggat yaram mu génnee xaalisam yëpp financer leen waaw mooy li ma lay wax xam ne ministère du sport moom li mu war a def def na ko arrêté ministériel signé nañ ko déggoo mën ne la réunion def nañ ko parce que man dama bokk ci CNP maanaam tey ba arrêté bi boo ko demee lire fiche d'affiliation maa ko indi biir association bi association ba ñu waree def li ñuy def def nañ ko. mais est-ce que dem nga déplacé wu dem fële si ministère toog waxtaan ak ñoom man kenn man kenn loolaa la laaj. waaw ah, loolu mm-hmm. mooy dama la wax rek. Mm-hmm. xam nga tey dama la ne euh, tey li ñu def mm-hmm. euh, yoon bi ñu jaar raaya yu ñu jot am li am yëpp umpul umpul ministère.